taxawaa gilee mooy màndargal ndoorteelu tàggatu bi ci centre de formation professionnelle et technique bu daarul alimil xabiir muy naal boo xam nag soqeekoo na ci kuréel gii di bu Tarqiyyah méngoog gisin bi nga xam ne am na ko ci wàllum tàggatu ak utum xëy. confronté d'abord un besoin social. farata la mos a doon ci ñu taxawu ndaw ñi ci lu jëm ci tàggat leen ak utal leenu xëy loolu nag soxal na ñooñ daara. ñi jànge ci làkkub arab ak ñi nga xam ne seen njàng antuwul ci école nguur gi loole yëpp nag li muy firndeel mooy centre bile ñëw na ci jamono ji nga xamante ne bii ci lañ ko gën a soxlaa fii si Touba di dëkk ba nga xamante ne bii limi doomi aadama yi nga xam ne ñoo fi yeewoo lu jar a bàyyi xel la taxaw leen. fonds de financement de la formation professionnelle et technique ginnaaw bi nga xamee ne xelam dal na ci offre de formation yi accrédité na tàggatu bi jëm ci transformation des fruits et légumes maanaam joxaat dayo lépp lu jëm ci ndugg mu tooy ak meññeent yi waaye itam développement web. bu ñu ñëwee fii nag gis ñoo xam ne dañoo fippu taxaw Touba nag dañ koo xamee ci loolu liggéey bi liggéey wu taxaw dañu gis ne centre bi. vraiment benn model intégré de développement la bu fi am un modèle économique qui vit par l'intérieur des acteurs ñoo xam ne ne ñoom ñi ngi fi li ñuy soxla lépp seeni ay askan ñoom ñoo ko war a mën defar donc ñun ñu nee ne ah ñii kat li nga xam ne dañ leen ci war a mën a tàggat gis nañ ne déjà rek ñoom dañ koo soxla diggante atum deux mille vingt et ba léegi nii lu yemoo ko fukk ak juróom-benn junni ci ay doomu aadama ràññeeku ca ndaw ñi ak jigéen ñi jot nañ leen gunge lu bokkut ak accréditation yi nga xam ne nag soxal na certificat professionnel de spécialisation yi soxal wàllum câblage informatique installation panneau solaire ak transformation mbooleem li nga xam ne dañ koy bay 3FPT jublu naa gunge mbooleem tàggatu yi nga xam ne dinañ ko amal ci bile formation yi àgg ci sax. ba lu jëm ci wàllu mbay ak càmm. Touba ci région bi ci département bi ñu yaakaar ne nekk ci commune bi ñu yaakaar na nekk tamit euh, ñun war nañoo mëna a tàggat parce que dañoo sant ne ñu jàppale xëy ndaw ñi ñu nekk ci programme d'urgence boobu bu ñu gisee ay perspectives ay opportunités war nañ ci mën a lëkkaloo ak ñoo xam ne ay yoo xam ne ñu ngi ci développement bu baax a baax pour que rek Sénégal mën cee jëriñu. centre de formation professionnelle Daarul Alimil Xabiir taxawal nañ ko ca atum 2022